jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ci Baol Média ñu ngi ànd ak euh, Moustapha Messere jamono ji nag dégg ngeen xew-xew yi nga xam ne moo xew Touba ndax saa yu fi mbir xewee ak mu mën di doon rek ci actualité da ngeen ci dégg Moustapha Messere mu sànni ci kàddoom mu mel na nag jamono bi am na coow lu fi jot a am coow li mi ngi njëkk ci diggante sëñ Basirou Abdou Khadir ak ki nga xam ne moom lañ dénk Orange ginnaaw bi nag am na yenn ci ay journalistes yoo xam ne tàbbal nañ seen kàddu Moustapha Messere nag di jàngat actualité mu mel ne actualité bi du ñàkk noo xam ne itam moom dina ko jàngat sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu maa ngi lay ziare baax moom Diop Thiat di yi bàyyi xel Baol Média yëpp jërëjëf am na solo léegi sëñ Moustapha dañu daal di ñëw ci actualité bi fan yi dégg nga fi coow loo xam ne am na fi lool coow li dem ba takarnaase tàbbi ci hmm. loxo yoo xam ne nii sax foogu ñëw ne dana tàbbi yow lan nga ciy am comme jàngat waaw jàngat bi ma ci am man jàpp naa ne coow amut ndax ki yëkkati kaddu yi mooy porte parole xalifa général de Mouride mooy rek kaddu ak yoonu Mouride hmm. procès bi moom la sëñ bi yónni woon ci président de la république mu dox ko kooku am na information moo tax président wax ko ba procès bi am. mais bi procès bi amee li nga xam ne moom lañ présenté woon sëñ bi présenté woon ko porte parole ak maire dëkk bi ak liñ def dafa wuute loolu tax sëñ bi ne awma information. dañuy mhm. waxtaane procès bi yëg na ko waaye dañ demee ba liggéey bi sotti bañ koy def yëgatu ci dara xañ naa wax ne yëgu na ci dara. ndax dafa war a rendre compte xalif général des mourides te lu mu yëgut ko ci rendre compte war a rendre compte yëpp population bu Touba yenn kilifa yi te lu mu yëgut ko rendre compte mm. ki nga xam ne mooy maire dëkk bi yëpp kilifa la ci it lu mm. bu ñu yëgut mm. ci la Touba amagut indépendance dafa bokk ci ab région ñu naan ko région Diourbel gouverneur bu Diourbel yilif ko bokk ci ab département ñu naan ko département Mbacké préfet bu Mbacké yilif ko bokk ci ab ab ab arrondissement sous préfet bu arrondissement Ndame yilif ko Touba dafa daal dugg ci lépp boo demee ci maire bi ak civil ba administration yi muy doxe fépp ma fay doxe ba mu te dëkk bi ni ñu wootee ci élection locale dañuy tànn kilifa gi mooy tànn kenn takk muy maire tànn conseil municipal yi tànn chef de village de quartier délégué de quartier yëpp Touba loolu moo fi ma sànn amul benn président bi samp bant te jëloon digal ñu ne la bant bi samp ko fi wala sémp ko fi samp fi léegi nag bu ñëwee ak seen dama ci dama ci jëli jàngat mooy lu toll na directeur boo xam ne dañu laa fal parce que sëñ bi am possibilité bu woowee président jot ko bu woowee ministre jot ko woo benn directeur ñetti yoon bi ko laaj ci mbir nangu ko cee leeral ba mujj bi directeur bi ne ko dinaa la leeral te leeralu kon damaa jàpp ne kon am na sew-sew bu ci am boo xam ne xëy na état moo am lu mu bëgg a def foofu loo ko war ci responsabilité mooy yëgut taxanoo ak bi a yëg ci li xew dara lan nga sabab moo waral diggante tànqamlu euh, ci directeur bi ak wala diggante état ak euh, kilifa yi nekk ci Touba lan moo sabab loolu analyse bi ma ci def mooy état day calcul dañoo jóge ci ay élection mhm. depuis ñu toog fi ñoom ba léegi la daj dañ ko Touba ci ay ay ay ay ay réalisation bilan bu ne ñu ngi koy wax ci rajo yi bu ñu day mel ne xobi garab danga naan ñii ko rëccuwuñ bi ñu ko jox ne ñu koy tudd mais lenn loo xam ne population baa ngi ci bénéfice hmm. yi moo ko mën a may fii liñ perte fii noonu lay def ay calculam mais nag loolu ça n'a rien à voir ak ndigal dëkk bi daa am nañu doxe loo fi mën a def lu mu baaxal baaxal baaxal population population bi dañoo am koo xamante ni moom rek la ñuy déglu muy xalif général des mourides mhm. kooku lu mu amul accord rek population bi suur nañ ko mhm. boo defoon dëkk bépp assainissement sëñ bi génn yëguma te bëgguma population bi suur nañ ko Touba noonu la def bokkut ak feneen boo demee Linguère dafa am réalité dem feneen dem feneen dem feneen loolu état ko yilif fii rek dafa nekk trente mille hectares trois cent kilomètres carrés quatre vingt quinze villages du titre foncier Sénégal gépp Touba fi fii titre foncier ci ci dëkk yi ngay yi ngay dégg Sénégal gépp amul benn commune bu fi titre foncier problème mu assainissement war sa jaaxal Touba parce que bi mu amee mbënd Touba képp ci àdduna Sénégal gépp moo fi yëkkati a participé kon jàpp naa ne bu ñu dee def problème assainissement problème mu yëg na maa yëgu moo wasu doon seen problème mm-hmm. dañoo war a ñëw ci kilifa gi jox ko responsable murid gi moom la ñu diglu koo xam ne bu ne woon dama murid yëpp wuyu si tey ji avion danay xam ñëpp dañ defar wuyu si ko kooku la nga ko war a jox mooy kàddoom akub ciram mhm. nit ki nag boo ko xañee kàddoom akub ciram defaloo ko ta dool defalatoo ko dara Moustapha mu mel ne mu mel ne kon état su doon tànxaam lu dafa war a tànxaam lu ñi nga xam ne ñoom la fi teg te mooy ñi ko fi nekkal waaye kilifa yi waruñu ci woon tànxaam lu ñi nga xam ne moo leen yëf di leen fay salaire man mhm. na leen a tànxaam lu DCE comme député bi fi am ak ay ministre conseil yooyu nga xam ne moo leen di fay man na leen tànxaam lu mhm. mais nag kantaan ñi nga xam ne nag ñoo yilif ñoo ñu ma tudd kooku waru leen tànxaam lu état amul lu mu mën a def ci àdduna quatre cent seize milliards de autoroute bi mu koy def dafa ñëw fii joxe laaj ndigal tàggoo mm-hmm. Mm-hmm. te autoroute bi ak bor la li dafa ñëwaat xalifa bi euh, euh, inauguré ko ko loolu yaakaar naa ko mën a jaar foofu beneen projet booy mën a indi loo xam ne mutu trente milliards da ngaa war a ñëw jël si ndigal assainissement bi naam baax na mm-hmm. commencé ca laa commencé fee ci yem waaye nag ñoom fi ñu la tànnal ne la commencé fa defal lay sa bu bénéficié bu baaxee population bee bu dee tëli ñoo koy jëfandikoo bu dee courant ñoo koy jëfandikoo bu dee leneen bu dee leneen bu dee assainissement yi noonu mais nag buñu nee cartographie dëkk bi lañu xool techniciens yi ko dugal ci assainissement bi au lieu di taxaw muy am xetab yooyu dañuy dugal assainissement fonce ci biir assainissement bi mhm. jàpp naa ne loolu centre ville bi gën a yella commencé mhm. ci jumaa ji ak kër sëñ Tuubaa yi wër foofu yëpp mhm. nga xam ne jëmmi biir ormay dëkk bi ci sant bi ci àll bi ci santaan yi. Mhm. arrangé ko mu génn moo ko ci moo moo ko ci arrangé. Mhm. léegi nag li tax ñu génn tawfeex te tawfeex bokkoon ci programme bi lii moo tax sëñ bi ne yëgu ma. Mhm. li tax ñu dugal daaru minam te daaru minam bokkutoon lii moo tax ñu ne sëñ bi ne yëgu ma. loolu mooy problème bi ñoom dañoo dugal li leen neex génn li leen neex commencé fa ñu commencé fa ñu waxutoon bàyyi fa ñu waxoon. est ce que est ñoom jàppewuñ ku fi toog xale rek. Euh, lu ñuy jox foofu lañ ko war a yóbbu est-ce que est-ce ñoom jàpp ñu ne. waaw loolu am na ci parce que boo dee xool daaru mi nam man fi laa dëkk. luñ mas a wan ginnaaw la ci mbooleem yi ñu joxe ci dëkk bi. Hmm. ab sëriñ mi ngi fi doon am bi suñ mun taxaa toogee xilaaf mooy bi wër palem jibe kebe bi. Hmm. dara mosu fi am pourtant ay nit a fi dëkk soxla nañ ko. Hmm. waaye niñ xamee waa daaru mi nam duñ laaj. sëñ Moustapha ni mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ko waaye duñu laaj Touba Mbul gi 30 kilomètres à Touba boo demee Rara diggante Kayel ak Mbul Kayel jamonoy colonial ba nag ni amatu rang sax far yoonu suufa fa nekk ci lu muy ci département Mbacké pourtant amatu tëli te ba nag ni dégguñu wax ci dara yooyu yëpp dañ leen ci masoon woon ginnaaw ñun miis nañ loolu ndigal sëñ bi ñu dafa xaalul yoon hmm. li xam ne moo ko yaral boppam taalib yi di ko jox muy université bi trente milliards hmm. du aide bu jóge siin wala seen état defalu ko ko mais propre moyen murid yi la jër investir leen loo xam ne ci ndigal li sëñ Tuubaa bokkoon muy université te sàkku bëgg ko defar it daf koo sàkku ci taalib yi sëñ Tuubaa ñu defaral ko seen bopp hmm. ba ba laajee lu mu cee la nga xam ne moo ko war a def lu askan la ko suñ bàyyee muy assainissement ak éclairage public ak ak ak ak ak loolu moom état loolu moom mu ñële dafa bëgg a tabax kër da ko mhm. defar kër yi jumaa yeegi lépp ñoo ko def moo mhm. ñu ngi lay sant di la gërëm yi am na solo di la gërëm